yaakaar naa ni kii ñu àndal di seex Alassane Sène sopp yenent bi alayhi salaatu wassalaam ñëwam fii ci kër gi mbégte mu rëy lay def ci moom muy mbégte moo xam ni bi mu yégée ni rek mi ngi ñëw la ko tàmbalee xaar waajal ko ngir xam ni kii ñëw moom dafay soppeem sëriñ bi daal yaakaar naa ni yow moom kenn du doyal ci yow ndax sa mbokki bopp yi ñëpp ñoo maase ni sëriñ ku ko gën amul ci mbaax waaye ci bëgg nit waaye itam ci safo doomu aadama bi ñu fi seex bi yebalee bërki dem mu yebal seex Malick mii magam ak Assane Sy Mansour ak Elas Ba daani daal bëgg naa ngeen dem kër Serigne ngeen yóbbul ma fa lii te xam ni fàttewuñu ko tey yow it nga wax ni bu ngeen demee ne leen Seex Alasaan na dalal xelam te xam ni lépp ngi ci kanam te incha allahu dana baax alaaji Idris ki ñu àndal dafay koo xam ni yonent bi rek lay wàlle yonent bi rek lay wàlle barki dem Abdoulaye Ndiaye ngalgu daf ma wax ni ma muudu ba mu wuy ko mu ne ma bu ñu bëggee dara ci yonent bi grâce à Cheikh Alassane dem nañu ba sunu doom yu jigéen ñi ak yu góor yi sax yonent bi la leen tuddee kon moom bari na ñoo xam ni mi ngi tabbal ci ñoom ak bëgg yonent bi alayhi salaatu mi ngi tabbal ci ñoom di leen xiir ci ñuy julli ci yonent bi alayhi salaatu kon moom mbaaxam bu ñu fi nekkoon di ko wax duñ fi jóg dëkk bi camion la fi dugal ay nag gëléem ndox lu ne mu tabbal ko ci kër yi ngir lan ñooñee nga xam ni yonent bi rek lanu bëgg te guddi gi bu am lu woon dara doom mu ni waay waay nan ma ko fa yóbbu waaye kon sëriñ bi dama koy bàyyi rek mun nuyoo joxe kaddoom kaddu cant ak kaddu ngërëm ndax wax dëgg yàlla euh, ñoo ngi ñaan itam euh, gàmm gi ñu fekk ko at yu bari nga xam ni moom ba doon nag sunu mujj gàmm euh, Cheikh Alassane soppe yonent bi euh, yow yow yow la ñëpp déglu kon kon on vous la parole nee na ñu ngi sant yàlla bu baax nee na mi ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kaddu yi sax daanaka du gudd maa ngi sama biir kër nee na mën naa dalal boppam itam ci biir kër gi mën naa dalal gan ñi mën naa leen yeew itam nee na si Sidi Ahmed mi ngi lay ziyaara nee na mi ngi yeesal cofeel nee na mi ngi yeesal ak kóllëre nee na yeesal mbokk nee na ci sunu diggante ne mi ngi santaat yàlla bu baax nee na bi mu tàbbee nag ci sa ëtt bii say nuyoo say ñaan mi ngi jàllale ay nuyoo ak saa su ñu koy jàllale nee mu yegg si ci yow sëriñ bi nee na ñëw fi ndokkeel la ci weeru tedd wi gane àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na weeru gane àddina sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na mi ngi la ci sant wax ji sax daanaka du bari nee na wax ji sax daanaka du bari nee na xol bu tooy dund bi ñuy dund fan yi ci dund gi ñuy dund fan yi nee na bi weer wi ak léegi waaye xamal ni sant nañu la waaye xamal bu wér bu wér safoo la nee ci safoo la. ci fonk la. nee na ci fonk la. moo tax ma wax Moodu. nee moo tax mu wax Moodu. mais danaa dem seeti Serigne Sidi Ahmad. mais danaa dem seeti Serigne Sidi Ahmad. su ma ko nuyoo ziar ko. su ma ko nuyoo mel def naa ko ci famille na ni nag def naa ko ci famille bi yëpp. moom moom. lantinoor la. lantinoor na ci tab. ci mbaax ak ci nee na ak ci mën a boole nee na ku ko nuyu rek set ko mel na ni nag set nga ñëpp moo tax ma ñëw jox ko sama nuyoo mu jottalil ma ko xalif bi ñaanal yàlla yitam xalifa bi mu yàgg fi ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na ñaanal Serigne Maodo ko wér nee na yàlla itam may ko wér ñaanal ko mbooleem njabootu Seydi Hadji Malick nee ñaanal ko mbooleem njabootu Cheikh Seydi Hadji Malick nee na santaat bu baax sëriñ mu ngi lay sant fan yi nee na fan yi passé amuñu sax occasion waxtaan si nee na amuñu occasion waxtaan ci waaye sa taxawaay waaye sa taxawaay ci mariage doomu Viviane bi ak Adama Adama xam ne Adama seenu njaboot yaay seen kilifa. sa taxawaay foofu. sa taxawaay foofu. ñëpp ñu ngi koy rafetlu. ak wax ju tedd wax ju tedd ju janga fa wax. ak ñaan ak ñaan. ya nga ñaan. ngir sëy bi nag barkeel. nee na occasion la ci moom. ma waxaat la ko. nee na mu ngi la ci sant bu wér. bi nag mission nee mission yàlla. ne dëgg la lu complex la. lu bëri énigme la li tubaab di wax énigme. ne lu bëri bëri énigme la. lu diis la. nee na lu diis la. Eh, li tax ma duggee foofu sax. nee na li tax mu duggee foofu. dafa am benn borom xam-xam. dafa am benn boroom xam-xam. moom spécialiste la. nee na la. ci ni nga xamante ne. ci nii nga xamante ni moom la lañuy yamb di defaree lem nee na yamb ni muy defaree lem moom spécialiste la ci la ci mu wax ne nee mu wax ni li ko gën a yéem ne li ko gën a yéem ci biir fi yamb bi di defaree lemam ci biir fi yamb bi di defaree lemam ne dafa seetlu ni fekkee téeméeri lem a nekk ci biir. fekkee ni téeméeri lem moo nekk ci biir. téeméeri yamb. téeméeri yamb. nee na seetlu na ni. nee na seetlu na ni. quatre vingt yi dañuy féete kaw. nee na quatre vingt yi dañuy féete kaw. di mel ni luy sori chaleur veille. nee na mel ni nag luy sori chaleur veille. veille rek ñooy produire ya ñooy produire lem bi. nee nee na veille rek ñooy produire lem bi. waaye. waaye. ñooñu di leen samp. énergie bi nee na ñooñu di leen samp nag énergie bi ñoom ñoo nekk défense su lem bi suñ ko mm. produire nee na ñooñu ñooy défense lem bi nag suñ ko produire moo tax eh, bi ma bi ma waxee loolu nee bi mu waxee loolu sama xel dafa dem nee na xelam dafa dem ci ku njaboot nee na ci ku yor njaboot mel ni sàmm mel ni sàmm su dee amul ay jikko yu tedd nee su fekkee ni amul ay jikko yu tedd njaboot gi tasaaroo daf leen nee na njaboot gi nag tasaaroo daf leen di yomb. te dama seetlu si dara ci yow dafa seetlu dara ci yow. bi ma bi rek. nee na bi mu déggee yamb bi. suma xel yëpp daf la jàpp. nee na xelam yëpp daf la jàpp. ci sa taxawaay. ci sa taxawaay. ci sa mën a defar. nee na ci sa defar. li gën a yéeme nag ci sa dund. nee na li gën yéeme nag ci sa dund. yàlla dafa wax inna neen na yàlla dafa wax inna allaha maa sabirin ne yàlla nee na maa ngi ànd ak aji muñ yi nee na benn borom xam-xam nee na dafa wax ni yàlla li mu wax nee na gën naa kawe lool nee na yàlla dafa wax mii ngi ànd ak ñi nga xam ne duñu onk te sëriñ bi sa taxawaay yëpp li lay metti nee na kenn du ko xam yaa ngi bokk nit ñi sa mbégte rek. bokk ak nit ñi sa mbégte. loolu nag loolu nag. dafa wër réew mi. réew mi. moo tax ñun. ñu ñëw ci yow. ñu ñëw ci yow. dafay nekk mbégte mu rëy nekk mbégte mu rëy nag. ñu ngi ñaan yàlla. ñu mu sàmm la. mu sàmm la. ni ne ni mu sàmmee asamaan. ba max ci boppam mënu ca yàgg. ñaan yàlla. ñaan mu yàggal sa sa taxawaay. nee na yàgg jiite njaboot gi bi jaaxi nabil mustafa sallallahu alayhi wa sallam alxaqu min rabbikum fa man chaa falyumin wa man chaa falyakfur wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf waaye ñu nuyu sunu wayjur bu baax wi tam nga xam ne bi ñu nuyoo rek digganteem ak sëriñ bi benn la ci kaddu yu rafet yi ak ni mu koy jottale nga xam ni la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin astaghfiruka allahu ya mawlana wa atubu ilayka astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim la ilaha illa allah sayyiduna muhammadu rasulullah adduna mi xam naa ni dina jafe lool dañ bi nee na gannaaw bi mu nuyoo sant yàlla julli ci yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jooxe ñu yi mu ubbee ci laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin moom la yàlla musale woon jën wa ba kon nee na aaya boobu nag mucc googu muy muccale yàlla na ko muccele jataay bi nu toog nee na lott na ci sànni ay kàddu jëme ko ci yéen nee na ngëneel nee mi ngi ci loxol yàlla dana ko jox na ku ko sopp ñu julli waat ci sayduna muhammad sallallahu ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal nañu yàlla dollee boole ci xeetam ak njabootam ak soppeem. yal nañu yàlla dolle boole ci njabootam ak xeetam ak soppeem. yal nañu yàlla baaxe boole ñu ci nga xamante ni Seydina Muhammad moo leen opteel boppam nañu yàlla boole ci jaam ya nga xam ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo leen jëlal boppam yal nañu yàlla boole ci jaam yooyu. nee kon kay xanaa dañuy dëkk rek ci jéem. wax alhamdulilah rabbil alamin nee ñu bokk wax nag alhamdulilah rabbil alamin nee kàddu gi du gudd. ndax li ñuy dund ci suñu ruux. ndax li ñuy dund ci suñu ruux. di ko yëg ci suñu xol. di ko yëgit ci suñu xol. nee làmmiñ yi mënu koo tudd di ko génne. loolu lott na ci lool. wa tabarakallahu moo tax nii kaar kaar. yàlla bu ci lor topp. yàlla bu ci lor topp. yàlla bu lor topp ci kàddu yi muy wax nii rek la rek la Cheikh Alassane mën a mel Haj Modou ku sopp yonent bi te muy dëgg ci yow amatuloo droit def safaan dox safaan jëflante safaan wax safaan xalaat luy safaan mbaa nga ko ci lan la ko yàlla tagge ci lan la ko yàlla tagge ki gën ñëpp gën ci lépp gën fépp sa baay gën baayam ndeyam a gën ndeyam say maam noonu sa fami it noonu askan woo bokk rek moo leen gën fa tabaarakallah yàlla def yàlla dafaa teg yooyu la yëpp ne tas ne cas jikko ja mu ngi tàmbalee ci turu yàlla ne ko nuun wal qalam wa ma yasturuun ma anta bi nicmati rabbika bi majnuun ba àgg ci ba ne ko nag wa innaka la ala xuluqin azim firikat yi dañu koy firee tedd ngay jikko yonenti baa nga ca kaw tedd ngay jikko waaw yonent baa nga ca. déedéet. waaw waxal nee déedéet. lépp lu rafet. lu rafet. te sell te sell. te baax te baax. mooy tiitaroo yonent. loolaay tiitaroo yonent yàlla Muhammad. ndax mooy sirrul wujud. ndax kooku mooy sirrul wujud lépp lu am. nee bu yàlla amaloon Muhammad. kon du am kon mooy secret amal. yàlla daf ko bind ci leeram yàlla dafa bind yonent yàlla Muhammad. ci leeram direct nee man nag maa nga jóge ci yàlla waaye yéen ci man ngeen jóge moo tax maamam ne wa innahu is arada allahu nasatana min nuurihi nuuran nabil alam yi yàlla ñu mu nekk suñu mujj jotaay bi bu nekk gisante nee kat bu bu ko ñooru ci dara ne dafa bëgg nga nangul ko cofeelam ci yow te nag nga ñu ñaanal ko yàlla cofeel googu yàlla bu ci ngistal am yoon yàlla bu ko ay calcul lal yàlla bu ko ay pexe lal cofeel bu naturel la loolu la ñu bëgg ndax ku la sopp ànd ak yow te yàlla tax yow xam nga dañoo xaw a sob ne dañoo xaw a bari affaire léeg-léeg ñu réer ci ruq yi léeg ba dajeeg dara ba dajeeg dara mbaa ñu seen dara mbaa ñu seen dara waaye lu ñu seen rek sante ko yàlla waaye daal mbokk yi yéen samay freer ngeen du ne dama koy propagandal du ne dama koy propagandal déedéet jot gi sañuñu ko te moom wutul loolu bëggul loolu ku baax a ngi nii ànd bi yàlla na ko yàlla yàggal ànd bi yàlla na ko yàlla yàggal olof nee na ku seddu da ngay gëmm patiis te jàpp fu dëgër jërëjëf ne ñu ngi nuyu wayjur yi ca kër ga di leen bu baax di leen di leen masawu ci coono yi yal na yàlla dundal njaboot gi yépp bépp projet bu nekk ci sa kanam ci say yéene say nisër say bëgg-bëgg yal na la ci yàlla gunge defal la ci lu gën a kawe say njort ci kaw dund ak fekke ak tal ak képp ku la ko yéene fi muy tëje nag na la wóor ne na la ngay déranger de te mënul ñàkk te mënul ñàkk sa soppe sa soppe Seydina Muhammad gën ñëpp ñëpp xam ne kii mooy ki gën ba kooku sonal na ñu bëree bëri te moom dundul woon loola dundul woon loola nit ku nekk nag bu la jabootee nga sopp ko faw nga am lool doon ci moom jërëjëf seen jërëjëf yàlla yàlla fay kontaan nañ bu baax njaboot gi yëpp bég nañu kontaan kontaan nañu